wacce nga jege marché bi mais man daaw ma jaare fii corniche doon jëli ji ko ba fofu ndaw si fiba, baax ndaw si ne ko du da ngay continuer nii waa boo ma mënee yóbbu ne la xam nga fofu day gëna nit ñi na dafa ñëw ba ci biir nit ñi rek mu ne ko duma wacc auto bi ta fay lo ma sama xa man grand bi tit na ah. jaxasoo jël téléphone am pour wo ma gisatu sama numéro xamatu ko tul génnee sama numéro di lox ci auto bi ba noonu la mën a jàngat waa dugal dugal lan lan la mooy problème bi mu ne ko da nga may jox sama vingt mille mu ne ko waa am am jox ko vingt mille mu dem grand bi daal nee na dafa avancé rek woo ma téléphone ne ma xam nga sa place laa jógee ma ne ko waaw xam nga lu ma dal ma ne ko déedéet uh-huh. mu ne ma gis nga man loolu ma doon yóbbaale ma ne ko mënoo woon gaare nga woo ma mu ne ma sa numéro ma réer ndax tiit dafa tiit ma ne ko looy tiit uh-huh. looy tiit boo ma woowoon ma ñex ndeyam lii mais da ngay xool lii waa si loolu loolu dafa bëri Sénégal am na am na ñu ko dund ñu nga teg ko ci rajo yi dégg ko ci télé yi parce que société bi la société sénégalaise ñun suñu suñu yu bon bon yëpp ñun suñu biir ñi nga xam ne dañu néew doole ñun ñu néew doole ñu ñoo koy defante suñu biir ji ji moo tax suñu problème dafay naqaree régler parce que ñun ñëw ñëw di doole ji ñooy dóorante marto ñooy tegante ay dil ñun jigéen ñi ñooy crépante les juniors moo tax problème bi dafay naqari lijjanti li na ci réew mi kenn mënu lijjanti kenn mënu lijjanti ak autorité yi uh-huh. ñoom ñoo yàq ñoo yàq moitié moitié jigéenu Sénégal ndax dañ ci gis xale yi dañu rafet macha allah dañ ciy gis ab xale xemmeem ko te yàlla xam na ni amuñu benn benn projet ak yow nag lu dul fooyee la projet bi mooy fooyee la tàmmal la tàmmal la benn dund boo xamante ni nii mais soo ko tàmmee jiji waa saa waay bu la footballee da ngay dem uti moroomam loolu mooy indi prostitution bi déguisé bi sax ndax nee la ñi nga xam ne dañoo assumé yor seen carte taxaw ponti ñooñu laa gën a respecté sax ndax ñoom assumé nañ xam nga liit gi loo nekk da nga koy assumé. c'est ça. te jiji naa la fabal leen na nag xëy na xam nga ko sax. Uh-huh. gis nga njaayum yàpp mi dafa dox Sénégal. da ngay dafa dox Sénégal dafa dox bu baax parce que góor ñi ñi ñi. ñi ñi nga xamante ne am nañu tuuti notori notoriété ñi nga xam ne am nañu tuuti benn reconnaissance ci bëtu sénégalais yi ñooñu ñooy jaayloo xale yi seen bopp parce que ci ci chantage lañ koy lañ koy jaaree prostitution proxénétisme li ñuy jiiñ ndaw si moo dox ci Sénégal dafa dox parce que parce que parce que xale ñenn ñi ci dugg amatuñu choix bokk amatuñu ñoom lu ñuy bañ. déggal déggal Modou Mbengue bëgg laa yàpp ban yàpp ban Modou bul ñu dugal. ñu dañuy rek. pompe laa mën a wax. mënu ma ci xuus jiji. muy xuus junj doy na borom xel. gis xale xale yu jigéen ñi nga xamante ni ñoom dugg nañ ci benn façon dund xamante ni nii. ba mën a ba ci génn dugg nañ ci piège boobu leen société bi tàndar ba ñu dugg ci mënatuñu mënatuñ ci génn ndax tàmm nañ dund boobu munu yemale mënatuñu yemale seeni bëgg-bëgg jigi Sénégal nga nekk fa néew ci doole dund fa dafa metti combat de vie la combat la foog nga nekk nit bu dëgër ci say principe nga am looy bañ ne man lii duma ci dugg nekk ci li nga nekk doyloo li nga am da ngay dugg ci piège ci la société bi de tendre lii mooy sénégal réew mu jafe la ñu juddoo fa la ñu yaroo fa la ñu màggee réew bu compliqué réew bu naqaree dund est ce que yaakaaroon muy sénégal est ce que yaakaaroon ne jeunesse bi rek ñoo mën a libéré loolu yépp corruption bi cagatu gi sëriñ si ñuy jënd ak mm-hmm. euh, yooyu yëpp daal xeetu mbonteef ak ñi nga xam ne ndeysaan man nag daf ci am benn xeet goo xam ne ñoom laa gën a yërëm gis ñoom laa gën a yërëm ka gis muy ñi nga xam ne wallaahi jegewuñ sax triel ndeysaan mais billahi dog dog rek mooy tax nga yónnee leen sant leen dara ñu jaare fa lekk xaalis bi yow nga tam leen dëmm fekk billahi problème mu àdduna rek a tegu kaw bopp yi ñooñu ñooñu man ñooñu la tuddee ay victime Eh? ñooñu ñooy les vraies victimes. la. ñooñu dañuy eh? franchement euh, dinaa ci gis parfois ay yoo xam ne ndeysaan lu yàlla xam doy na daal. yaakaaroon nañu loolu xeex rek lañ a libéré lu ma ci mhm. am na lu ma ci xam ndax jamono yi may toll am na ci koo xamante ni lool laay dund ak moom. Mhm. da di teg seen projet liggéey yow comme te yow yaa féetee. yow la yàlla gën a xëy na wërsëgalee nga yoxe côté finance bi ngay financé mais après fourage dàll xiseen mais kooku te man leer na ma ne buggul alalu jàmbur du du tirian du sàcc mais tënk-tënk jamono moo ko téye ba loolu nga financé woon day dal di nax saay fi mu ne nii mënatuma ko sax jox téléphone mënatuma ko gis te tout temps dañ doon jox ko mooy li ngay wax nii te kooku man dama ko xam. alay Sénégal moo metti ci ji te kenn teguñu ko nag lu dul suñu njiit gis nga suñu njiit yi nga xam ne ñu dañ leen ne suñu àdduna yéen ñu koy gérer mhm. ñooñu indil jafe-jafe yi yëpp ji ji parce que luñ lu a lu mbooloo bokk benn nit ak famille am ak ñoo ko naan ful toog léegi seize millions de sénégalais yenn yi toog moo indi cagatu bi mo indi mo indi tegante dil bi mo indi manque de confiance bi ñu amante suñu biir ñak gi andi ciow di sénégal dafa mo andi ciow mo andi ciow li tamit mo andi saga ndayi kilifa jàmbur mo indi saga ndayi kilifa jàmbur yi il faut moy leer gis nga ñi niin gis nga autorité yi ngay dégg ñu naan biiral nañu ki ak egg nañ ci képp ñu arrangé ko après mu jaar ci suuf joxe xaalis ak seen jabar yi dañ koy yëg de seen jabar yi dañ koy yëg mais dañuy dëgg bal bi parce que ci ci ñoom donkaasi gi bi ñu nekk nee nañu kenn du leen ko yàqal waaye boo demee am na ci am na naan muut bu seen jëkkër yi nee nii jaar na ñoom tamit ñu ne nii jaar ni de xam naa ci dañ non dañ koy dañ koy yëg sax ñoom dañuy yëg seen jëkkër yi li mu nekkee waaw mais dañ ciy dañ ciy dëgg seen tànk noppi waaw defal ndànk defal ndànk géré seen géré defal ndànk xam naa si ñoo xam ne seen jëkkër yi du leen manquel dara waaye seen jëkkër yi duñu doyloo bosu jabar ji jabar ji tamit du doyloo bosu jëkkër ji bu jëkkër ji ne mooy nit ñu profité ci ñoom tamit ne mooy nit. waaw gis nga. jaajëfal xam nga ni loolu àdduna bu tukki la ji. lan la naa si mélangé fii yëpp nag. waaw àdduna bu tax ma jiji ku doyluwul yow xam nga nit bu doyluwul doo doyal ci dara. maa xam Sénégal jiji déggoo ma de. wallaay. gis nga ku doyluwul. yow li ngay li ngay li ngay li ngay am yàlla di la ko wërsëgale. muy wàllu koppar ak koom-koom la nga ca am bu la doyul. boo ci doylu leneen doo ci doylu di di di. doo doylu ci dara kañ boo boo daa ëmb lépp rek. doo doylu ci dara. dara doo doylu ci dara. doo doylu ci dara. doo doylu ci dara ñàkk doylu gi. ku ma yóbbu laay bañ nag waxuma ne ku ma yóbbu ak jiji ak <laughs> ni mu ñu ba boo amul boo nekkul un nit benn nitu principe. nga dagar ci say principe suñu société mo lay tànc ba nga def musiba wallaay ko nga dagar bop ci li nga nek sénégal pour nga mën fa dund ci jamm soo ko société bi dina la ngay jaay sa bop di teg ay greffage di def lu leen te yéen chaque jour ngeen wax ko fi ne jigéen jànq xale bi jànq bi jeeg bi meer bi màgget bi dafa jege chaque jour ngeen wax ko fi ñun suñuy bal dafa gaaw a jeex ñun ñoo ci gën a dee ñun jigéen yéen li leen ci jig jiguñu ci ñun mais da xool rek ñun yor ay ministre yor ay ministre gis nga ndax gis nga dafa am gis na jiji xëy na xëy na am na ci ñoo xamante ne sax am na rëccu nañ seen seen ndaw fi ñu jaar ñoom ci seeni ndaw ndax ndax tënk-tënk jamono ak jafe-jafe jamono waaw mais boo rëccoo nag bajo kenn du ko récupéré bu demee rek dem bu demee rek kenn du ko récupéré bajo kenn du ci rëccu xaalis kenn du ko bu dem moom kenn du récupéré moom loolu dëgg la buñ ko nappaajee dañ ñàkk loolu dëgg la mais mais gis nga jiji uh-huh. Sénégal na góor ñi na góor ñi yërëm jigéen ñi te jigéen ñi tam ñun nañu yërëm suñu bopp jiji xam nga ci naan uh-huh. mooy dénk sama bopp di ko dénk ñëpp uh-huh. ñun nañu yërëm suñu bopp muy booy liggéey na ci jëmbat fulla ak fayda nga doylu di wax fulla di wax fayda di dox fulla di dox fayda boo liggéeyee liggéey sa liggéey ba ba mu sotti def ko nu mu waree ñibbiwaat sa kër doyloo li nga am toppatoo sa njaboot mais didi ñi ngi tëddee suñu njaboot yi si biir kër yi ndax ndax dara teguñu ko lu dul suñu suñu suñu bëgge ak utu ngërëm waa loolu yëpp man tëddee bi ci biir kër bi garaawul tëddee ci biir kër gi waa man boobu du problème man sama problème waaw ñi nga xam ne dañ leen joxum réew ñu jël réew mi teg seen bopp ko yi di wëndëng wëndëng gi ñële ngànk diine jël diina ji teg ko seen bopp koo yi di wëndëng wëndëng gi man boobu mooy sama problème te ñooñu ñoo ànk suñu ñoo ànk suñu àdduna yëpp awra fa mooy li nga doon wax sànq Sénégal problème bi da problème bi moo yaatu te naqaree rek la ñooñu ñooy bopp nag ñooñu buñ leen lijjantee rek waaw boo jaay jën yi nga wax fële boo bàyyee fii boo waxee fii di nga bàyyi leneen lii mooy Sénégal waaw ñi jaay jën yi ji pour tënk ah pour ma couper mané pour ma ko Reo maa ngi euh rew mu jafe lañu lañu nek mais jigen ñi buñ ci taxawé mu dak dé aja man na leen a cote sele palatre waaye andi rek palatre ñep ba paré cote sele nag ñu genn and buñ ci taxawé léegi mu dak man mom duma ci am lu bari man dal buñ mané ñu and genn xex wa buñ mané ñu and genn xex mhm. man mom dina leen cote ñamu bot mom samay bot mom duma gëm dina xol buñ jàkkaarloog policiers yi si meeku leen ngeen attaqué man ma des ci ginnaaw di yuuxu yor micro bi di wax tey gestu nag ba ñu jubal biir ambassade tant que jigéen ñaa ngi ci kanam policiers yi duñ def réaction mais bu dee sama genre gi hmm. dañ ñuy motoñe hmm. dóor ñu mono yi puus ñu fële hmm. mais bu dee jigéen ñi duñ yem waaw nañ dem ci greffage nag ñu ñëw ànd xeex nañ dindi greffage yi dindi fausse ongle yi yooyu après la bu ñu gañee xeex bi ba pare nañu teg suñuy greffage teg suñuy sil teg suñuy pose ongle. voilà mais tant que magul talaguñu yooyu. mu ko lii rek laa waaw mi ngi am na solo maa ngi coupé am naa yàgg naa. jaajëf jaajëf li lañ leen wax jigéen yeneen dëkk yi yëpp congolais yi camerounais yi yàgg naa ko fi jooy di ko wax ak a waxaat ñëpp a ngi xeex waaye ñun foo ñu fekk ay xeef. yaay booy na nga def allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. jiji <laughs> naka nga def. ah ñu ngi lay ziar. ku delloo ziar te di ko nangu. wallaay ràccal nañ la yoon bi ubbi nañ buntu yëpp acca. liggéey bee metti liggéey bee metti taayim ba damay tardé laay bi yëpp dama koy tardé rek. dëgg la dëgg la tama ji loolu neex la ma waaw tama ji kañ dañuy jébaane rek jébaane jébaane buñ ñu naree rey rek ñu jébaane waa nguuru Macky Sall ku ko jébaane lay bañ waa di ziar ñëpp nel ñëpp jàmm gis nga ji ji femme bi doon wax li wax yépp wax ëpp importance gis nga Sénégal xale yi ñoo ko mujjee lijjanti mais gis nga Sénégal jigéen ñee ki jigéen ñee ko mujjanti uh-huh. jigéen ñi takkuwuñu jóg taxaw moom laa gis ni waa talaata Sénégal loolu rek mooy solution bi na jigéen ñi jóg comme góor ñi nanguwuñoo jóg xëy na dañoo ragal wala dara na jigéen ñi jóg bu jigéen ñi jógee góor ñu topp jiital seeni i njaboot góor ñi topp seen ginnaaw loolu rek moo koy faj te xale jigéen yi Sénégal euh, li leen yàq mooy léegi ku nekk danga bëgg a nekk sa kilifa bopp gis nga nit day at soo dëkkee say waajur ci kër mhm. te lool woo leen tegoo leen seen place ci erreur rek ngay dëkk boo dëkkee tamit ak mag moo xam ne dafa yàgg ci àdduna xam jaar ci li nga xamante ni tolos tolos bu lay yedd dee ko déglu bul ne kii mënumaa yedd ndax nii la meloon ak fii la jaaroon kooku erreur bi mu jaaroon ci lay bañ yow nga jaar teg ci sa tànk ndax mag mu ne xale nga woon waaye mag ñu bari ñi ngi toog tey di rëccu naan bu ma delluwaatoon xale tey kon xale bi mag mi lu mu mun a mel boo boo déggee démbam ak paaseem bu ñëwee di la yedd déglu ko kooku moom moo la mën a yee ci àdduna waaye xale yi léegi kenn amu ci kilifa góor ñi tamit ñu ci bari amatuñu jom gis nga nit liggéey boo mën a liggéey baax na da ngay góorgóorlu am na jigéen ñoo xam ne góor guy góor guy góorgóorlu di ñafe sax di tànk ay foos ak di teg ci taabal bi moom la gën a foog góor ay chemise di dem ci bureau ba ndax dañu naan kii jàmbaar na góor day ci boo ñëwee sa kër nag sangu ba set jigéen defar bu toog doon kilifa il faut ñu yeewu il faut ñu yee yi il faut ñu tegaat njaboot gi ci ci loolu moom mooy dëgg ci ji Sénégal nag dëkk la boo xam ne neexu la waxee. <laughs> parce que soo waxee jël sa wax ak ku nekk na nga koy déggee mais maa ngi ziyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla yàlla defal ñëpp jàmm. macha allah kontaan nañ ci. macha allah macha allah. jërëjëf. macha allah bëgg loxo de ah ah oui qu'est-ce qui se passe oh man dama demoon voyage démb laa ñëw ah lu xew ah dañu wax de benn Amina euh, Badiane mooy proxénète. xam ah oui da nga saf xorom nag luy proxénète donc may xam nga luy proxénète xam nga luy proxénète parce que toi-même on t'a cité dans le proxénétisme donc xam nga luy proxénète ministre yi boo leen wooyee ñuy duur ah nga saf xorom luy doom day xam nga lu xam nga luy proxénète. waaw ah. xam nga luy proxénète. ministre yi yi. donc yéen yéen a nekk ci gannaaw euh, Amina euh, Balde la xaw ma Amina kan ah pour que plainte Amina nekk au-dessus pour que de un. ñu topp mbaa gi ba fàtte ni Barthélemy Dias moo moom dakaar gi na moo fi def meeting boo xamante ni ku doon politique sa taat tëgg na dama. maa la ko wax. ngeen jëlaat plainte Amina Balde boobu teg ko xaw ma Amina Balde xaw man xaw ma tudd Amina Badiane. ngeen jël plainte Amina Balde boobu pour mu suul meeting mu Sonko bi euh, sama papa a ak ak ak Barthélemy Dias ngeen jël plainte Amina Balde pour ñun ñu bàyyi waxu Miss gi mu sedd ngeen jël plainte Amina Balde bi pour ñun ñu fàtte sax ni violé woon nañu Miss ah ah awra.

décembre bi Macky Sall li préparer gis nga ministre li lañ nekk ci réew mi de tëdde suñu xalé yu jigéen ñi fu ne lañuy dem nak Cheikh Katia Cheikh Katia ci <laughs> porte ba ca ginnaaw Portugal yoy yëpp fu ne lañuy ñuy jaarale xale bu jigéen gis nga ñi ñom ñëpp dañu wara tégal sen seen amul saral amul lewal xolal nee naa leen détecté leen kër yi ñi ay domaram lañu xolal suñu xaaliss bi yëpp suñu xaaliss bi yëpp envoyé nañ sen koy yi ci téléphone yi dëgg seen ndey rek ñoom ñëpp ministre yeeg député yeeg ñoo mel seen yaay booy ndaw yi ñoo bokk même bu ñu leen may dara paa yi fi nekk bëgg a ŋànk dëgg seen ndey rek loolu rek mooy problème bi ñu lii yëpp ñu nekkee ñoom la moo tax man insurrection laay woote tout le temps parce que ñi ay doomaram lañ yow nañ la leen mën a dénk réew réew ak teraanga bi ci nekk yàlla teral leen jël awra nëbbu ko ca suuf ñu ne déedéet yàlla teral gii mu ñu teral suñu awra yi fañ ko luqati dañ koy génne nag dugal ko ci portable yi joxe ko léegi njaboot gi au lieu ñu uuf leen déedéet duñ leen uuf de nañ jël seen alal ji yépp duñ ko yanu de nañ nangu ndey lépp teg ko suñu bopp koy bu ñuy dee ñu yebal gendarme yi ñu génn di leen rey moo tax ma ne leen xoolal problème bi duñu ñu nag gendarme yi même problème lañ am ñu nag gendarme yi ñoom système bee leen nañ duñ dajak ñoom de dee leen song ji buntu kër yi gendarme yi di koj ba keroog bu ñuy réussir daj ci benn kër Minister baak doom yaak njaboot gaak ñëpp fu seen gel yi ne ñu détecté ko man def naa liste gel yi def naa liste gel yi mansour fay biral na benn niis bu ñu naan rama xaw ma biral xaw ma lan gis ko woon ak doom nag dangay kii rek junj ñoo ñëpp gis nga moom lañ fi tegal seen ndey rek da ngay xool lii dëkk lam réew ngeen war a lijjanti mi ngeen ànd ak sëriñ si joxante loxo di teg seeni dil jël alalu askan wi yépp teg ko ci seen bopp koy di fëndëng fëndëng mais da ngay xool lii mënuñoo jot ci miis yi ñun daal xool télé rek bu ñu rombee dugg seen vitre tente bu affaire yi tel ñu dugal ñu ci te ñun gis seen wenn rek ñu ne ñu ne xuy kamaj duñ ko def duñ ko def de dañuy dem di ko joxante fële ak ñu sàcc suñu pétrole ak suñu gaz xañ ñu dund bu ciolé nak pour ñu jappalé leen man jappalé ma leen de man dama am lu may jël ci lii rek dama ko soxla wax ji laa soxla de pour tegal nday ministre yi ak député yi ak siwol leen pour que maire yi bañ leen a votel ma won leen seen liggéey li nga xam ne moo tere réew mi dem li tax imam yi jóg ne dañuy fexe signéloo nit ñi signé xaw ma nangam pour continuer di namp seen ween yooyu loolu moo fi dul amee de loolu ñun dañuy saw si seen kaw luwaa yooyu ñun liñ leen signé signéloo mooy lan ngeen bàyyi ween yi ween yi ngeen di namp ngeen di bàyyi nit munoo dem ba sa gémmiñ gi am 32 ans ba sax ay dëbëj ngeen bëgg a continuer di namp yeen imam yi yeen lay waxal sax sikkim wàcc leen namp gi ak gunay yi wàcc leen namp gi da ngeen wax ci askan wi ñun signé wuñu de duñ signé de liñ leen di lo nak moy ngeen bàyyi namp gi géej gi ngeen jaay jën yi yaatal espace yi pour mool yi bañati dugg ngeen dem ci biir di namp yeen di mais da ngay xol ni nañ ko dina amina amina ñëwaatal yow moom duma la bàyyi loolu oh, tax na bu ma sonnee rek arrêté ngeen di nguux am na parce que Amina ku gis parentam xam ne Amina mii dafa am ñu koy puus. parce que wax dëgg fa yàlla bu coow lu jubee nga dégg ci borom borom euh, gorobone yi ñu ci gouvernement bi homme d'affaires yi euh, chef de entreprise la xaw ma nu ñu koy waxee doom nday yéen da ngeen am bii waaye ñun dañu am bii. maa la ko wax. ay Feuz man maa la bëgg. fekkee moo tax nag ngeen ne ah kaay nañu utiliser suñu doole euh, dooleel Amina ndax bu dilu Amina éclaté dilu ministre yi day éclaté. ministre yi seen i day éclaté te ministre yu bari si doom day ah la Amina. koo rek data moom bii rek la Amina. bii rek ma ko tojale. parce que ñun waxuma la si de waaye ministre yi ma yor seen dossier am na si ñoo te dama leen di xool ci télé bi parfois ma ne mais non yàlla moo mën bind Sénégal moo ministre yoo xamante ni ak homme de pouvoir ak ak xaw ma nu ñu koy waxee euh, de société yi yoo xamante ne awra rek te yéen daal gis rek. yéen da ngay xool lii affaire gis rek ngeen gisante ak ak ci suween bu leen romb ngeen ngeen boros ko si xaale ko maccaale ko ba borom leen seen tissu di tànk. bu ngeen jógee toog ci télé yi nee na ngeen waaw Sonko waroo fi nekk président na dégagé gis nga réew parfois ma gis ay politiciens yoo xam dama leen di xool damay ree. da ngay xool lii lekkante bi yëpp lii la. duul rek duul rek ngeen di def. yéen fi gën bëgg jigéen yéen fi gën mënta dontu yéen a fi gën bëgg awra yéen gën bëgg cus. waaye lii tey maa jël tamali waay. dafa fekk kay am na cus yu ngeen ci gën a taamu. mais cus moom bu ci romb rek ngeen seex. cus bu romb rek ngeen seex. cusu manqué yi nag di ngeen ko seex ndax manqué ñoo bëgg lu yomb. mii si ñoo bëgg lu yomb rek. waaye hymne national Sénégal te ñu see yokk cus. suñ demee ba fin ba ñun pincez tout vos corps frappez ba la cus cus départ waaw lii lii dëgg la 1960 ba tey ndekete cus moo ñu dëj léegi nak làmmiñ ñew nak marque suukar bek marque sukku mbëkk dina fekk serigne ci fa ñuy cus ñu teggi sen tuñ fekk ministre fa ngeen di cius ñu teggi nday sen tuñ waxon na lañ bi ngeen ci tegee aji sar, mané gis nga ci cagatu gi lañ nek feuse merci ñew nga de pc tu bi mo une fois ñu dolli ci cius doomu xaraam yi di li ngeen nek ci dëkk bi cius rek dina feeñal sen nday ba ngeen xam heureusement ba mako andi Bima mom say buma genné diko di dogaté nak di len ci ñamal rek doomu kharam yi ministre ñom Abdou Mbow Abdou Mbow doomu kharam ji am nga benn vidéo fi France xalé Paris ya Abdou mbaw xalé Paris ya yeen tegal sen nday rek yeen mom kenn bu len yërep ci si ngeen di bayyi te jema jité réew mi daf len teral ngeen lank dem luqati sacré li yalla làq ngeen ne ko duñaat teg ko nak ci réew gor su jog fukki xalé ak ñent ngeen ray len ndax cus cus ci su wedd nga xam ne lañ set mu dagg paaka mu dagg bu xawee kii tuuti mel ni mbuusu ndox ngeen topp ci rek di namp ka nampaat boo leen namp mu daanu ngeen wuti beneen mais da ngay xool lii da nga toog ñu bëgg gore rek ngeen ne ñun ñoo bañ ci su rek ñun ñuy wax waxi liggéey mën a joxe dépense ngeen ne déedéet duñu am liggéey duñu am dépense cus ndax cus mais lii lii lii lii ku ko mën a wax ko bëggul waaye yow amit yow merci miis yi ñoo bëgg lu yomb du ñëpp nag am na mannequin yu correct man xam naa maman Mbaye maman Mbaye mannequin la mosuma ko dégg ci ay soroxo soroxo ay ay yu ñàkk fayda Alfie Ba mii di def Alfie bul ko assuré bul ko assuré bul ko assuré ay yu ñàkk fayda Alfie Ba mii di def Alfie cuisine xam naa ko mannequin Paz ngir yàlla garante bi man dama laa bëgg bëgguma nga am gàcce bul assuré kenn bul assuré kenn defe ko rek ni ko Bouba Ndour waxee woon fële mu bëgg xam lu leer fii doomam ji ñëw mànd ji dugg kër jàmbur deko ne fa mu ne ci nga manul fofu rek bul assurer ken mannequin kay mom bul assurer fañuy dem do fa dem yeggoo fa. masoo ko dégg jay waxi sew amna man kay yo xam te ne masoo leen ci waxu tëddantu mais amna man kay yoo xam ne image c'est égal tëddantu sen image c'est égal awra seen image c'est égal susante weer wala susante awra. mais da nga xol li bu ngeen bayul awra bu romb ngeen sax ko sen gemini dina am police. bu ngeen bàyyil awra góor bu ñëw ngeen sax. moo tax ko ci màgget yii yii màgget kooba yi moom foo leen fekk nii lii lumpa lumpa lumpa ba màgget mais lii lii lii lii fu ñu ko lii du natt lii doy natt am ay kilifa fal ay nit jox leen ay institution ñu nekk di lumpa dekk xampa tenk maccante ka cusante waaw mais lii lii. ba pare nag ray ci fukki xale ak ñent ci cus ko parce que borom amna na mën na jënd rondo oba mën na yobbu dubai moy def sen gémmiñ dem ba ci yag di mel lu lu mboral fi c'est tout aura n'est pas bon à mettre dans sa bouche mi da ngay xol li nit day seexlu nit bu la xaalis jaral def yenn yi nit bu la tukki jaral def yenn yi nit bu la bul bëgg succès ba def yenn yi Sénégal nag boo bëggee liggéey ca télé ba borom télé ba ne oui y' a pas de souci. kaay leen remonté dans mon bureau. mati mu mar may marsay ween marsay ween nga seex awraam seex awraam ba mu daal am na si ñoo xam da ngeen sax jot tëddam da ngeen di seexante ay awra a meram de seexante ay kii rek ok demain tu vas faire un. ah bien demain à bu ko defee nag nga nekk ca télé ba nag foog ne laay laay la laa moom borom bi dama koy sexal lu ma neex laa fi def doom day yamal bi nga sex bu subaa borom télé day gis keneen ku ko sexal mu bàyyi la am bu dàq la ca xaj wala mu lay waaye daal ca télé ba di sexal keneen c'est-à-dire koo fi sexal ba mu ba mu ba mu ba mu embauché la rek xamal ne dina keneen dina ko sexal mu am. Ah, yow lii dëkkumaat yu baaxee la ñuy waxal ñii de génn fa de territoire Sénégal génn fa de waa da xool lii. fi de lay serigne nek di bakku ko nganta nganta loo ko reey reey li bo mako waxon tay man ñu yobbu ma keur yaama di tax waye ka xam sa tala tay ndera ko wax ki kii ragal ni muy wax de xaaral ma tagat ko defaral so gram bu bi mooy da ngay xool mo se ko ko bala donc bàyyi leen bi jox len ko paay bàyyi leen te bu pour ñu jël leen bàyyi leen tëggantu bi promotion canapé xaw ma nuñ ko tuddee arrêté ça parce que quand tu couches avec un patron pour qu'il t'embauche quand tu couches avec un ministre pour à à à. Fass arrête. allo allo. allo. Eh, eh, eh, da nga xool lii. waaw maa ngi lay ziar. non lii da ngay xool rek. waaw mais lii. da ngay xool lii rek. quatre ma ne. sunu sunu sunu ministre yi moom jàpp sunu sunu rek. mais dañuy xool li waa léegi xam lu ñu war a def ñun tamit jàpp seen jabar yi di di kat rek rek rek buñ génnee rek ngeen yoxo buñ jàpp sa jabar nante yi laay waxal rek jàpp leen jabaru ministre am naa fi am naa fi benn am naa fi benn booy boo xam ne nee na Serigne Mbacke Thiam ak beneen imam boobu imam tiwaalatukat boobu te muy nekk Facebook rek te mu demoon pale te xarituma rek koy sàll nu mu tudd si imam bu jaay affaire rek dafa imam gentleman bi waaye dimbal leen ma bi dimbal leen ma bi dinañ ma def ci muy ndaw rek muy ci décapotable bi bi bi fu mu am gel rek ñu dem gel rek dañ japp seen seen jabar yi di leen katta ñoomit di leen ëmbal waaw waaw. lii mënul nekk. mi ngi toog yi ku ci bëgg kii ñëw leen ñu la ba An non An est ce que An la du An de. mooy beneen ministre beneen. non du An non du An. du An du An de boo waxee tur bi rek Modou Fall Modou tayam sa bi ci alxuraan bi nga bàyyi ngay dem sëriñ Mbàkke Caam ñoom ñëpp ay cagale moytu leen seen bopp bàyyi leen seen man dama waaru waaye kuñ ci jàpp fan yi moom kuñ ci jàpp sa sa jabar dinañ la katt waaw parce que yéen a jàpp suñu doom yi di ëmbal rawatina ngeen ngeen ngeen ngeen leen ci yoon loolu dafa metti double crime ngeen def da ngeen violé ba pare ëmbal ko modou fall la modou fall boy disco bobu rek dinañ len kat kat sen jabar yi waaw kat ñep jaajëf oustaz modou fall la modou fall mok serigne mbacke ndjay sama ben boy may ñuko jam kër gelam may ñuko jam, may ñuko jam, neena gel bi nak mom yow préparer sa kaani rek buñ la né rayal ma rek nga ray say loxo kaani ki tañal leen defal len bi bayi len ñu dem ñëf sen ndey foto ko na nga yonne ma serigne mbacke Mbàkke yow laay waxal tandr na la pièce waccal Modou Fall di nga siw de di nga siw de billahi di nga siw Modou Fall yow waxal sa alxuraan gu neex yi ngay wax ci écran yi ne won na buñ la liñ bëree rek japp la boy baa fi na xamna dina dugg legi ci live voilà kérok dugg na ñaxtu affaire bi mu metti ko trop te dafa amul xale boobu la yaakaar nag yéen a ko bëgg a jël ci loxoom bu kii monte kële monte te nee ay càkk ngeen voilà dañ yeggal yi mais da nga leen réew ngeen wër di ñu jiñ ay viol. un ministre pour à à partir à Dubaï quand tu couches avec un ministre pour avoir romb ovo romb. alors demain est-ce que ça va bonjour wa alaykoum assalam ni ngi ma ngi lay nuyu te di la ziar ni ngi lay ziar ma ngi nuyu ñi déglu panel bi ñepp rek ni ngi lay ziar di la jaajeufal jaajeuf di wax ni lepp xam sutura so xawé ko la rek ndax gor su yalla setal képp ku ko bëgg di limal yalla lay wéral bopam li ma gis deug deug mo di Ousmane Sonko day nit ko xamne suñu borooma ko sempee ci jaam ñi tan ko muy gi jënn jëm jo xamne nit ku sel la di wax lu sel di wax lo xamne kuy asgor te diina ñor la yalla ñor la yonente bi ñor la boko ko da nga xamne nit ku baax ku ragal ay wax ba mu dalé wax ne nañ ko indi lo xamne doyna tuuma ba tay gisaguma kenn ko ko wallahi kon nak buñu taxawé ñom bëgg waxtu wu nekk ñi nekk ci état bi Ousmane Sonko guddi Ousmane Sonko bëccëg suñu borom ñëw ak ci dogalam ak leen yàgg def mu doon leen suturaal ñu bëgg a xam suturaas asgor yàlla weer leen wallaay teen lépp nag nii la képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi tey néew ji doole bokkoo ci Macky Sall àndoog moom boo sàccee ginaar ñu ne la ci kaso bi dootoo génn te kenn du la lijjanti ñoom jamono yooyu ñu ngi sàcc milliards yi réew mi topp ci gono yi jigéen yi guddi ak bëccëg su bàngoon di moy ak ñoom yàlla te saa bu ñu génnee mel ni ñoo gën a ragal yàlla ku yàlla bind te ñoom ay yéefar sax tane na ma yàlla kon ñi ngi wax ne réew mi na nit ñi delloo waat seen xel yi xam jamono ji njiit yin yor baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg baaxuñ timis baaxuñu takusa kon na nit ñi génnaat xam lan mooy suñum réew xam ne foo man di demit da dellu si ci réew ñu jéem a góorgóorlu defar suñu Sénégal mu jëm kanam yàlla na nu yàlla sàmm salaamaaleykum wa rahmatullah ah a a dugaat rek man kii laay continuer de kii laay continuer de mu tojal ma li nekk ci état bi yépp doomu xaram yi ma doon wax bu ma ko waxee ñu ne ma da sos tu dois savoir avant toi il a fait la même chose à une femme et après toi il va le faire donc nous day siixlu un aura une personne une tous une personne. alors mais tu prends ton tous tout le monde a associé dedans. alors. alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa salam wa barakaatu. wa xalif général. ah maa ngi Khalif général. neexul xol yee neexul Sénégal moom kenn warut fi yeewoo sax di reetaan. voilà man dama dox ba yem ci vidéo bi vidéo bi ma téye ko rek. di di di di reetaan ndax comme li ñuy wax rek tant que le poisson est pourri de la tête tun bi ca bopp bi lëm nëbee suñu problème yëpp mooy bopp jën bi buñ ko daggoon sànni ko rek problème yëpp jeex. jeex na tak Macky Sall ak cagatu jeeg cagatu jeeg nambu cus yeeg Euh, xam nga càggatu bi ci célibataire yi sax garaawul mais dangay gis fii ay jeeg yu nga xamante ne ni yor nañ seeni jëkkër yor seeni doom dem di càggatu ji ndax am lu ñu dundalee seeni doom xam nga loolu yëpp crime économique bi moo tax gis nga ñii di sàcc suñu xa koom-koomu réew mi uh-huh. bu ñu jëloon dagg seen koy yi ñoom ñëpp nga xam ne dootuñu mën a laal wala ñu émasculer leen tàpp leen comme ni ñuy def xar yi nga xam ne yow boo amee xaalis yi doo mën a laal mais kenn dootul détourné loolu mooy la première chose à faire mooy lan l'argent est le nerf de la guerre gis nga xaalis mhm. ñu ngi wax affaire matérialisme mais gis nga jullit ñaar mooy noonam ñàkk ak feebar ñàkk ak feebar gis nga baax na trop mais Sénégal fii bokkul ak temps yooyu nga xamante ne booy foree ay butéel dem jaay wala nga for ay plastique dàll plastique dem jaay am loo jëndee loo loo loo wala loo reeree amatul de Sénégal léegi amatul loolu.

Aktuelman ni, davane ak ay, nyinga khamne nyo yon partizan Ousmane Sonko, toujou li son sir la defransiv. Men defransiv wakay, khamne ki dene legi wak no ko. Dis nge Ousmane Sonko, il na ete ni de pre, ni de lwen liye a la jesyon ekonomik de l'Etat, a la jesyon menm de l'Etat. Bon mou kou neke, bon mou ti neke denonsen no ko nyo dak kon. mais tay ji amul joxuñu ko benn xaalisu réew joxuñu ko benn poste de responsabilité mais nañ leen ko bàyyi mais gis nga la meilleure façon de se de se défendre c'est d'attaquer mais nag attaquer gis nga wax ji moo gis nga euh, gars yi ils sont ils sont ils sont des stratèges mooy ñi nekk au pouvoir parce que xam nga li tax dañuy ñëw rek. di di di di di tuumaal rek di tuumaal Ousmane Sonko l'opposant parce que moom rek moo fi nekk actuellement opposant di ko tuumaal rek su ko defee moom mu naan day fayu rek day fayoo que day justifié wu non non gis nga population bi nag ñoo war a jël seen destin en main jóg daqaar nday ñii teggi bopp bi bopp bi la ñu war a dagg rek sànni parce que gis nga tànk defuñu ko. wallahi problème yii day gën yokk rek waaye du du du du du du du du du arrière gis nga yéen ñi nga xamante ne ni yéen vous êtes éveillé déjà man ñi éveillé waxuma ak ñoom mais gis nga mouton yi nelaw ba tey laay waxal mouton yi nelaw ba tey laay waxal gis nga réew mi. baayu kenn moomu ko ñun ñëpp moom réew mi wala doo gis Sénégal kenn ko jóg di wax waxu teer amul kenn kuy jóg di laaj teer bi inauguré nañ ko mille fois mësul daw ba tey dawagul chaque jour ñu ne teer bi tey ëllëg suba ngoon chaque jour def nañ ci ay mille plus de mille milliards def nañ ko ci man dama yaakaar ne gars yi xamuñu lan mooy milliard quoi man dama yaakaar ne gars yi xamuñu lan mooy milliard ñoom ñëpp. Euh, euh, euh, Euh, terre bi stade bi stade ay stade football ay stade euh, stade omnisport ay stade xawma arena am na beneen stade bu ñuy tabaxaat au niveau de Diamniadio kenn du ko dénoncé actuellement xam nga ci lan lañ tey gannaaw paiement des bourses familiales la nga xam ne ñëpp mën nañ seede ne dëkk bi yëpp maire yeeg gars yi jàngul yeeg ñi xamul dara yëpp ñu leen di jox ku nekk vingt cinq mille da nga gis famille bu génn ñu jox leen ñoom ñëpp ay vingt cinq mille mais ñooñu nan la ñuy def ba te pourtant xamuñu ne ñoom seen xaalis la mais dañuy gërëm Macky gis nga ñoom ils font un travail extraordinaire en amont gars yi nag loolu duñ ci bàyyi xel gis nga actuellement dëkk bi yëpp ñu ngi koy pavé dëkk bi yëpp ñu ngi koy pavé gis nga tu les travaux gis nga d'ici deux ans fii deux ans yi ñuy dem ci kanam xaalis dana tuuru ci réew mi ba c'est pas possible dinañ jënd ñëpp waxuma la ñëpp. waxuma la xale yi ay caga de mais père de famille yeeg mère de famille yeeg presque ñëpp léegi ay caga lañ caga économique parce que dañu amul dara mais dañu amul lu ñuy dundee ils sont les gens sont fatigués ani ani ani ani ani monsieur Prodac Mame Mbaye Niang bi détourné woon suñu vingt neuf milliards fu mujjee kenn waxatu ci ani Aliou Sall bi détourné suñu mille milliards kenn waxatu ci ba BBC ci boppam ay tubaab ñoo ñëw suñu dëkk defal ñu reportage confirmer loolu ak yeneen ak yeneen ak mu am ay traçabilité Sonko jóg dénoncé ko jarul kenn génn ci mbedd mi mais ñun waxuñu sax man waxuma sax nañ taal waxuma sax nañ yàq mais gis nga pour la le quart de la population bu génnoon ci capitale bi chaque jour ñu génn chaque jour ñu génn manifester professeurs yi et et instituteurs yi. enseignants yi infirmiers yi mais ñëpp ñi nga xam toutes les couches de ñi nekk ci population bu ñu doon génn rek di manifester rek di ñaawlu di laaj ñu rendre leen compte ci suñu am-am ci suñu alal mais ñii duñ fi def un mois ñu jël seeni bagage ani coach Cheikh Omar Anne anamu kenn déggatu ko ñi ngi ani ani ani Mansour Faye fii lañ ko taxal fii lañ ko taxal cinq cent millions bi muy nekk ministre de et de l'assainissement mu jul fenn ndax la moy goro président de la république jox nañ ko mille plus de 1000 milliards ci covid bi général françois ndiaye woko pour mu def ay compte rendu mu ne ko c'est pas de compte à rendre ken metti lu ko ali nguy ndiaye lu ko legui nak ali nguy ndiaye 300 milliards ali ali ali ali ali njuj ndiaye waw ali njuj ndiaye fum tol ni mom ak farba senghor ils les ont mis au frigo xam nga li tax parce que ils ont détourné plus que des milliards gis nga ñoo idrissa sek lamu toje won ak ablaye wad sax ñi li ñu tojee moo ko ëpp téeméeri junni yoon gis nga gars yi mënuñu sax imaginer ils peuvent même pas imaginer comment ces gens là moo tax wala lenn rek la ñu waroon def jàpp leen rek tàpp leen dootuñu mënati sëy ak jigéen su ko defee ñoom dootuñu doyate xaalis dara parce que loolu la ñuy jàpp xoolal xale yëpp nag ñoom rek la ñoom rek ñoo tëddee fii xale yi barki démb bi ñuy inauguré euh, Cheikh Kacha bu jam ñaajoo mais kenn mënul dem kenn mënul ñëw xam nga li tax. Elimane mais toute la population bête toute la population inculte et bête ñu ngi woon parce que nous xam nga gis nga une révolution comme les may wax rek vous êtes les fers de lance d'une révolution yéen li ngeen di def dafa extraordinaire mais bu leen yaakaar ci le bas peuple xam nga li toujours le peuple est est est victime et innocent et bête. le peuple moom nous ñoom boo yaakaar ci une révolution ne se fera jamais moi dans li ngeen di def continuer leen tey ji yow boo wàccoon tey ji dina am fukki ji yu ñëw taxaw comme ni ko Akhenaton di waxee ani ani kilifa kilifa mi nga xamante ne nii c'est c'est c'est c'est une problème personnel entre deux personnes ñu jël ko tëj ko ci kaso bi Bougazelli détourné na def na faux billets ay trente trente milliards de faux billets Bougazelli mu ngi ne di def campagne pour Aliou Sall Farba Ngom dafa détourné ay milliards deux cent plus de ah. gars yi di wax ay vingt cinq milliards mais ëpp na vingt cinq milliards gars yi lu ñu la wax multiplier ko par cent man maa la wax loolu anamu mu ngi fii ani député yi doon trafiqué ay migrants di wax ne kii sama jabar la ñu leen di defal ay passeport diplomatique ñu leen di jox ay quatre millions kii cinq millions anañu ñu naan ay faire semblant de démocratie naan way dëkk bi am na yoon ban justice la am bu amoon justice dinañ jël Téliko mi envoyé ko à Tambacounda pour punition parce que il est intègre y a pas de séparation du pouvoir gis nga yooyu mooy suñu problème te problème yooyu yëpp nag kan moo koy mooy Macky Sall li may wax rek le poisson est pourri de la tête lañu gis nga Macky Sall bu ngeen di nekk fii naan noonu noonu lañ leen xaar élection ñu voté gi wallahi dana gañe élection gañewaat élection gañewaat élection jël ku ko neex bu mënul présenté wu sax muy jël ku ko neex fekk ko fii fii y a pas d' élection qui tienne ici année Alpha Condé bërki démb gañewul troisième mandat après gars yi ñu démettre ko de ses fonctions parce que xam nañ ne buñ ko bàyyee du dem mais fii ay élection ay ñoom ñoo yor fichier électoral bi li ngeen di foog ne bourse élec bourse bourse familiale yi dañuy ñëw indi seen carte d'identité indi seen carte électeur ñu recenser leen noonu la ñuy def pour sàcc élection yi

gis nga doomu xaraam jooju taxaw naan xaw ma euh, charte xaw ma nañu si charte la si laa naan ay noon noonu nañu euh, taxaw pour euh, def voter la paix mais li tax ñu mais mais mais buñ ñëwee nañu signé ak paix mais ku neex bañ koo signé ñoom na leen concerné fii la ñu jël ay nervi ñëpp gis ko ñu yor ay fetal ñu yor ay fetal am na benn sax un repris du pouvoir bu Cissé Lo joxoon fetal mu ne Cissé Lo moo ko jox fetal kenn wowul Cissé selo mais ngeen ne dëkk bi am na yoon dëkk bi ban yoon la am dëkk bi ban yoon la am gars ay état seen doom yi ay États-Unis la ñuy dem ay Europe mais di dugg yor ay carte internationale gis ngeen kii wax ci télé bi la l'autre la nu mu tuddati le professeur la bi nekk université Gaston Berger la mooy la la grande gueule la te muy nekk ci jàkkaarloo xaw ma nu mu tuddati sax ku ñuul kooku di ndoog mbaam xuux rek nu mu tuddati très moo génn ci sama kii professeur boobu nekk Gaston Berger Ndour Babou mais kooku il a une carte gab internationale gold la yor xoolal amul limite lu ko neex Macky Sall daf ko jox lu ko neex li tiire ci xaalis partout dans le monde gis nga il joue avec vous li na xale yi duñ mais dañuy il faut ñëw dund il faut que ñu survivre il faut que ñu survivre mais xalé yi dinañ jagatu mais xalé yi dinañ jagatu xale yi dinañ jaxatu parce que ñoom amuñu benn espoir xam dañ naan l'espoir fait vivre non loolu la ñu mën a am mais ko ko ko ko amul mais gars yi fii mais mais mais fonde la ñuy réeree mais mais dama ne diaspora bi nañu bàyyi xaalis bi ñuy yónnee fii ci réew mi nañ ko bàyyi ñoom ñoo tax ba tey révolution bu amul ba tey ñoom ñoo tax en grande partie ñoom ñoo tax ndax ku nekk da jël kër gu nga xamante ne nii am na trente personnes chaque jour chaque mois nga yónnee. joxe xaalis yor ñu nekk ay quarante ans quarante cinq ans nekk seen kër bàyyi ñi nekk ci diaspora bi lu ñu am yónnee mais nan la ñuy liggéey nan la ñuy xeexee duñu parce que ñi nga xam ne ñi ngi ngi naan quel que soit alpha ak lu mu mën a lu mu mën a am paa bi dinañ dina dina dina togg añ dina togg reer o moins sa peut-être ndékki la ñuy taxaleeg yooyu dem jëndi benn euh, caféeg yooyu seen zone de confort duñ ko mës a génn arrêtez d'envoyer de l'argent nee naa leen yor leen seen yaay seen papa bàyyi gars yi gis nga gars yi fii xoolal ñu ngi ci discussion bi fii Wally Seck Pawlish xawma ak kii Ouzin Keita ñoo doon xeex xawma lan ëmb seen ak kii mooy bëri ba tey ñu ngi ci débat yooyu fii ci diaspora bi topp barki démb mais gars yaa ngi dee xool leen dañu occulté léegi dem leen ci Frontex bi ngeen dugg ci ci surtout Frontex bi ngeen xool Sénégal yi ñu ngi te ba tey ñu ngi te comme ay weñ au large du côte marocaine kenn du ko wax ndax dañ koy nëbb kenn du ko wax ndax dañ koy nëbb fu mu toll nii nee naa leen sous région bi ñëpp raw nañ ñu am xolal Sénégal ñëpp wax ma fii sous kenn ku jénguwul ñëpp jéngu nañ Mauritanie ngi nga xam ne ils sont pacifiques sax ils ont un temps ils ont jéngu nañu ba démettre seen président de la république mais ana ñu ñun ana ñu ñun ana ñu man c'est le cœur meurtri gis nga yëpp corollaire sous développement la ñii sii nii di jaay seen bopp caga yi mais ñoom tamit dañu bëgg a dawal ci 4x4 yi Audi yi ñu bëgg a dawal Q5 yi la ñu bëgg a dawal ML yi la ñu bëgg a dawal BMW yi la ñu bëgg a dawal waxuma la sax dawal dégg ngeen Fatima Fatima John Miss boobu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu tooñ ñi mais nee na pas sax daawuñu ko am danaan jóge fii ba Fatick pas sax du ko am mais pour vous dire que le degré de pauvreté de cette population pas sax duñ ko am. paas jigéen ñi fii xoolal yéen ngi wax ay ay ay ay ay kii nu mu tuddati ay hamburger ki shawarma mais wallahi mburoog ndambe rek koo ci jëndal koo ci jëndal yaa ko moom yaay bañ fu mu toog nii léegi fii fii fii fii fii fii fii nan la nit di amee dignité ndax ñàkk gu metti gi mais Sénégal de riche yéen bu sa dug dee leen dugg ci site internet yi ngeen xool les du pays mais Sénégal amul dara lu ñu manqué on a tout on a tout et on a rien on a tout toutes les richesses du monde se trouvent ici dans ce pays même les ressources humaines les ressources humaines nag kenn xamul nu mu mais ani déggati ngeen fi ay intellectuel léegi dañoo yaay intellectuel bi yow yaay intellectuel bi yow ñoom Akhenaton ak ñoom a Moussa Camara ak ñoom wala Morgan yeneen intellectuel tous les intellectuels ont démissionné ndax lan ndax lan kenn du def seen ceeb euh, euh, euh, suuf kenn dootul waxati ñun yéen yéen la ñuy topp si seen ginnaaw ngeen di wax il faut soulever la population il faut ngeen dimbali population ñu génn ci seen erreur yi ñu leen mettre parce que dañ leen defal ay erreur gisatuñu comme fas yi ni ñu leen jëlee defal leen ay erreur ñuy gis benn direction les gens sont fatigués. les détournements gis nga gars yi nañ leen di dàpp jàpp leen jàpp leen du du du du insurrection mais li ñëpp moom ñëpp jot ci la li ñu jël li ñu ñëpp mais crime économique mais moo gën graaw lépp parce que amul loolu lekk mais doo mën a julli doo mën a jaamu yàlla doos waaye doo mun la ne yàlla sax waaye man dama dal yàlla mais doo ko dal parce que amoo loolu lekk amoo loolu naan dañuy gis ay doom uuf njaboot doo leen doo am noo leen géré policiers yi li tax duñu jël mille francs li tax duñu jël gendarme yi li tax duñ jël mille francs li tax duñ jël téeméer ñoom ay fonctionnaire lañ dañ def ay concours at mi mais politiciens yi ban concours lañ def déedéet dañ leen nommé nii rek amatul benn opposant ci réew mi amul ñëpp transition nañ ndax lan maletu xaalis yi sëriñ ñoo ci desoon sëriñ yi ñoom bett ñu kenn ah. xam nga le chien ne mord pas la main qui le nourrit le chien ne pas la main qui le ñoom ñëpp ay doomu xaraam lañu jaay nañ dëkk bi jaay nañ dëkk bi. jaay lañ dëkk bi jeunes yi amatuñu benn espoir jeunes yi amatuñu benn espoir man sama xol dafa jeex gis nga jigéen ñi jigéen ñi ñooy ñooy ñooy l'avenir de ce pays mais nan la ñuy def jigéen ñi kenn yoratu leen góor yi amatul lu ñu yoree jigéen ñi léegi jigéen ñi se prostitue pour avoir de quoi se nourrir góor gu nekk bu ñu amul xëy dinañ mën a yor jigéen ñi entretenir leen mais buñ ko amul jigéen ñi il faut se débrouiller ils vont se débrouiller Le règlement pour wax ko di remercier Sonko son président Ousmane Sonko qui a vraiment nous mu Sénégal mais nous compter sur une partie du des Sénégalais Dans une révolution de tout temps une minorité n'y pas def la majorité la majorité est toujours bête la majorité est toujours bête parce que toujours de maintenir ci faits divers